Vous êtes, vous êtes en direct. Augustin. Augustin. Félicitations. Koşunlar kadar bize çok da kaçtılar. Tamam, tamam. Bravo les gars. Anybody? Uh, Adam Amber. s'il te plaît. C'est ça. Non, non, non, non. Musiquement. du président de la fédération. On se congratule et on félicite certainement Aliou Cissé qui a pu la faire connaître la

toute l'Afrique attendra enfin que le Sénégal sauve l'honneur. Et ça a été pour elle et moi des moments extrêmement importants. Je dois remercier Augustin Salon. Et on a aussi participé parfois par Mais je voudrais féliciter le coach et féliciter notre équipe nationale. qui a été exceptionnel. Il faut continuer à y croire. Manifestement, c'est l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Dans le reste, ce serait le travail de l'entraîneur. Ce sont des choses. Ils vont visionné le match, nous verrons les choses améliorer. Je pense que pour le prochain match, c'est un En tout cas, je euh, victoire et je suis sûr, Inch'Allah, les bénis. Comment avez-vous vécu le match Comment avez-vous vécu ben, Je l'ai vécu avec beaucoup un moment, de, de joie. Donc il y, avait tous ces sentiments, le stress, la par moment. Euh, par moment, l'arbitrage, j'avoue qu'on n'a pas trop bien compris, mais euh, cela a été fait, il faut absolument que nos joueurs continuent à jouer, même si par moment il y a des décisions qui peuvent être contestées, mais reste le même jeu. Donc, euh, euh, je félicite euh, les joueurs que je félicite, le peuple est derrière vous, tout le peuple sénégalais. Donc, euh, président wolof wolof président wolof. le porte-bonheur. Est-ce que vous allez continuer à accompagner cette équipe? léegi ci wolof rek léegi euh, moom si ndam bi Sénégal tey am na ci jël benn bëccam ci Oh le bluffeur dëgg na football bi xale yi ñoo nekk ci waaye Afrique yëpp adduna bi yëpp doon xaar Sénégal kon nag bu ñu signé ñu am ndam lu toll ñu gën sant suñu borom sant ko peuple sénégalais waaye nag kañ sant équipe nationale gaynde yi suñ entraînement si seen bi surtout xale yi ci ni ñu footballé tey te neex na xool ndax wane nañ tey réew mi ñu doon du mu ndaw xooloñ ci wàllu football te gis ngeen li nga xamante ni noonu la ñu feese stade bi waaye terewul suñu supporters yi waaye suñu wane nañu talent wane nañu njàmbaar dana yàlla def loolu continuer Sénégal ca kaw ca kanam. lamb bi Am I? Yes, yes, yes, yes, yes. ana ministre allo waxal Sénégalais yi dara moom. waa kontaan ci réew mi kontaan ci supporters yi mais kontaan ci peuple Sénégal tey fi ñu toog fi euh, ci ci Russie ci Moscou yëg nañ chaleur bi ñu peuple Sénégal jox moo tax xale yi aussi. bi ñu xamee effectivement li nga xamante ne moom la peuple bëgg ñu def ko ni ñu ko war a defee dañu bëgg rek solidarité boobu am te ñu sentir ko continuer ñu gunge xale yi pour ndamu Sénégal ndamu Afrique. merci beaucoup merci beaucoup. Adja un <laughs> bon allez ciao tout le monde facile.